alxadiisu saadisu wal ishruuna naam ñaar fukkeelu xadiis ak juróom benn min kitaabil arbaciina nawawiyati nee na an abi hurayrata jëleen nañ ci sayidna abu hurayra radiyallahu anhu yal na yàlla gërëm ko qaala mu ne qaala rasulullahi yonent yàlla muhammad mm. sallallahu alayhi wa sallam wax na ne mm. kullu sulaama mm. bépp cër hmm. am na ñu ne bépp yax hmm. minan naasi hmm. ci nit ñi alayhi war na ko ca sadaqatun sarax kullu sulaama bépp yax ñu ne sulaama mooy al idaam yaxi nit ñu ne mooy al mafasil waaye benn la ndax yax bu ne ci nit am na lu ko tàqale ak morom ka yax bala walla la ko tàqaleeg morom ka la yonentu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. sarax mm-hmm. war na ca mm-hmm. mifsal boobu walla sarax war na ca yax boobee kullu sulaama min ñaari jumla la jumla ju njëkk ji kullu sulama mooy mubtada mi mm-hmm. minan naasi bayaan la ci mm-hmm. sulama mm-hmm. alayhi sadaqa jumla ji mubtada xabar la waaye mooy nekk xabari kullu sulama kullu sulama minan naasi alayhi sadaqa mu mel ni cër bu ne ci sa yaram hmm. mbaa yax bu ne ci sa yaram hmm. war nga cee joxe sarax hmm. yow doomu aadama ndax loolu benn yoon la ci sa dund yonentu ne déedéet kullu yawmin bépp bés tatloo bopp dana fenk fii ca bés boobee chamsu jant bi saa yu jant bi fenkee hmm. sarax war na la ci bés boobu hmm. ci bépp cër boo xam ne mi ci yow hmm. ci bépp yax boo xam ne mi ci yow yonentu sallallahu alayhi wa wax nañu ñaata la ci jeneen ci beneen xadis wax na ne ñetti téeméer la hmm. ak juróom benn fukki mifsal hmm. ñetti téeméer hmm. mi ngi ci yow xadis jooju nag ko yonentu sallallahu di wax médecine reculé woon na torop mm-hmm. ku kenn xalaatul woon ne médecin yi mën nañoo am xam-xamu mm-hmm. ñaata mifsal moo ne ci doomu aadama mm-hmm. waaye bu ñëwee lópp junni at médecine moderne confirmé na li yonantu sallallahu wa sallam wax ne yooyee mifsal ñoo ne ci doomu mm-hmm. ñetti téeméer yooyu mm. ak juróom benn fukk mm. muy limi ba si xat mi mm. fekkee ne da ngay compter ci ati weer wi ati jant bi moom trois cent soixante-cinq jours mm-hmm. ci weer wi trois cent cinquante quatre jàpp trois cent cinquante cinq maanaam boo trois cent soixante daal mel na ni bési at mi jeex na hmm. mu mel ni nag loolu dafa xaw a jafe hmm. ci ki koy dégg hmm. ndax ñëpp amuñ xalal kon ñetti téeméeri sarax juróom benn fukk Hmm. nu ma koy mënee hmm. yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallama hmm. daal di la leeralal ne xanam yi nga ko mën a defee bari na ba ca mooy taadilu bayna snayni taadilu bayna nga maandu ci diggante ñaari nit mm. sadaxatun sarax mm. Mm. taadilu nga takkale bay na nay ni diggante ñaari nit sadaxatun sarax la mm-hmm. ñaar ñu jotee nga fexe bañ taqali ko benn ci xéwénoo ku nekk ci ñoom wàcc xaqam hmm. baal morom ka hmm. ñu juboo hmm. walla nga tàqalee leen ci atte leen su fekkee ne attekat nga ba jox dëgg ki am dëgg ki amul dëgg nga won ko ne ko amuloo dëgg tàqale googu nga tàqale leen ak ak sarax la moo tax mu ne taadilu bayna snayni hmm. nga tàqale ñaar hmm. cig màndu hmm. sadaxatun sarax la benn nga tàqalee leen fexe ba ñu xéwénoo wa in imraatun xaafat min baaliha nushuzan aw iraadan fala junaxa alayhima an yasaalaxa baynahuma sulxa lu tax wa mm-hmm. sulhu xayr mm-hmm. alquran nee na xéwénoo moo gën mm-hmm. wa axdirati lanfusu shox nit dafa bëgg boppam waaw fexe nag ba mu dindeeku ci égoïsme googu mm. ba déglu kàddu yàlla mm. ba def mbokkam ni mu def boppam mm. ba dootu ko tooñ dem def ko tooñoon walla buñ ko tooñee mu baal ko ndax bëgg na yàlla baal ko wala ki am xaq ñu wane ne moo am xaq ba jox ko ko hmm. ki ko xamul ñu wan ko ne ko xamulul xaq hmm. ba mu nangu ko hmm. ki mën loolu na ko def ndax def di sarax la taadilu bayna snayni sadaqa am nga sarax xaat ci dox ci diggante ñaari nit ñu waroon a yàqoo mbaa yàqoo ba noppi nga fexe bañ defee ko Mm-hmm. wa tuciinu rajula mm-hmm. nga dimbale waay mm-hmm. fii daabati ci daabaam daabatu buñ ko waxe waxee aadatan ñu ci jublu yee ñuy war lu mel ni gëlëm baa fas baa mbaam baa bax la waaye lépp luy dukkat ci suuf rekk mm-hmm. dàbbatu la mm-hmm. moo xam nit la mm-hmm. moo xam du nit waaye fii nag waruwaay la ci jublu alquran dana wax ne wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi rizquha wa ma min dabbatin fi l ardi wala tairin yatiru bi janaxayhi illa umamun amthalukum waaye bu waxee dàbbatu fii nag hmm. waruwaay hmm. li koy tegtale mooy taxmiluhu alayha hmm. wa tuinu da nga dimbale arrajula waay fii dàbbatihi ci dàbbaam taxmiluhu nga xen ko alayha ci kaw dàbba ja maanaam nga waral ko dàbb nga dimbale ko ba mu mën a war ndegam mënutoon a war ah? dafa bëgg a war gëlëmam amul kàttanu war ko mbaa hmm. amul technique war ko hmm. walla ñàkk na dégg nga euh, contrôle ci gëléem gi hmm. nga fexe ba indil ko gëléem gi tàggatal ko ko ba mu war ko walla mi nga bëgg a yéeg ci oto te mag la nga dimbale ko ba mu war walla dafa feebar nga dimbale ko ba mu war aw taxmilu lahu wala nga xenal ko wala mm. taxmilu wala nga xen lawoo ñeel ko mm. alayha ca daaba ja mataahu bànne uh, bataahu bagaasam mm-hmm. nga fexe ba bagaasam yi mu xamee mm. nga sëfal ko ko ca kaw oto ba moom gaa mën naa yéeg waaye bagage yi mu yore dafa diis wala diisuñ waaye moom mag la amut kàttanu yëgati leen nga fexe ba dugalal ko bagage am ci biir oto bi mbaa hmm. nga tegal ko bagage am ci kaw fas wi mu war hmm. loolu it yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa hmm. sahbihi nee na uh, sadaqatun sarax la wa tuiinu wa tuiinu rajula nga dimbale waay fii mm. daabatihi ci daabaam mm. war waayam mm. fa taxmilu nga hen loo ñeel ko alayha ca kaw ja nga mooy nga dimbale ko ba mu yéeg mm-hmm. aw tarfaau lahu walla nga yëgatil ko alayha ca kaw ja mataahu bagage saak la mbaa sadaqatun mm-hmm. sarax la mm-hmm. ji di fas nay mbaam mm-hmm. nay baxla mm-hmm. nay oto mm-hmm. nay avion mbaa hélicoptère boo ci mën a dimbale waay góor la wala jigéen mu ne rajo la fii nag jublu wu ci rek góor góor mbaa jigéen yoo xam ne islam may na la nga mën koo dimbale dégg nga de ba mu war ca daaba ja mbaa mën na mbaa mbaa nga dimbale ko ba mu yéegal bagage bi ca daaba ja hmm. ñaar yooyu yëpp bu ca nekk hmm. sarax la hmm. soo boolee ñaari yi ñaari sarax wal kalimatu baat tayyibatu bay aji tey sadaqatun sarax la baat bu tey moo xam ci xaq yàlla la hmm. ni ki subhaanallaahi hmm. wala allahu akbaru hmm. wala laa ilaha illa sarax la baat bu teey ci xaqi nit ñi ni ki nga wax ak leen wax joo xam ne wax ju rafet la ah ku sol mbubb mu rafet nga ne ka ah, yow de sa mbubb mi rafet na masha allah dëgg Mm-hmm. nga gis ni def lu baax nga ne ko ah, yow de li nga def baax na macha allah mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga li alquran waxoo quulu linnaasi xusnan da wax nit ñi mbaax wax gi nga waxal nit ki mbaax mm. mbaa wax gi ko wax mbaax mm. wax ji nga waxal nit ki mbaax mm. waxal nga ko ko ci keneen ba moom ci boppam sax wax nga ko mbaax dugal nga ak mbégte ci xolam ci kàddu baat bu tey boobu hmm. yonentu nee na sarax hmm, la hmm. wal kalimatu baat ak tayyibatu bay aji tey sadaqatun sarax la nga déggee ci nekkoon baat bu ñëgës bàkkaar la ndégamu warta ñëgës wa bi kulli xutwatin nekk na ci bépp jéego taxtuuha hmm. taxtuuha boobu danga ko jéego hmm. ila solaati jëm ci julli hmm. sadaqatun sarax boo jógee sa kër mbaa ci marché ba mbaa foo mën a jógee jëm ci julleekaay ba moo xam distance bu sori la mbaa bu gàtt la xamal ne jéego boo def hmm. sarax la mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. Mm-hmm. ñëw na ci xadis hmm. ne ku eh, laabal boppam ci këram génn jëm ci julli dara génnewet ko lu dul julli du jéego benn jéego lu dul yàlla yëgatil na ko ca daraja sippil ko ca bàkkaar jéego mm-hmm. bu ne nga am ca ñaar mm. yëkkati ko daraja mm. ak sippeeku bàkkaar xadis mm-hmm. mm-hmm. ji ne la jéego boobu sax mm. am nga ca yoolu sarax jéego boobu am nga ca yoolu sarax ñaata jéego ngay jéego boo ko bëggoon compter mu jafe waaye yàlla moom mi ngi koy compter kon hadis ji hmm. mi lay wan ne hmm. doomu aadama bi li ko war ci sarax bari na hmm. am nga ñetti téeméeri sarax ak juróom benn fukk bés bu ne bari na ñetti téeméeri sarax ak juróom benn fukk bés bu ne semaine bi ñaata la ñaari junney sarax mm-hmm. ak juróomi téeméeri sarax mm-hmm. ak ñeent xam mm-hmm. nga koo xam ne semaine bi mënu cee am junney dollar nga ne ko semaine bu ne war ngaa saraxe ñaari junney dollar ak juróom fukki dollar ak ñaar fukk xam hmm? nga loolu dafay niru bari bari na sax bu fekkee ne bés bu ne war ngaa saraxe ñetti téeméeri dollar ak hmm. juróom-benn fukk hmm. semaine bi dana nekk ñaari junney dollar hmm. ak juróom fukki dollar ak ñaar fukk nga bëgg wax ne ah loolu di bari na mu ne la déet bariwut di seetal yii yëpp bu ci nekk hmm. boo ko defee hmm. mu nekk sarax hmm. xam nga jéego yi ngay jéego fekkee bu sori nga nga nga dëkk bari de watu miitu da nga dëñal al adha lor wala nga ne watu miitul adha nga dëñal lor anit tariqi ci yoon wi sadaqatun mm-hmm. sarax la mm-hmm. al ada mm-hmm. mooy lépp loo xam ne mën naa lor ñuy romb moo xam aw doj la mbaa veer bu ko ne wala ay salte nga dëñal ko ba ku fa jaar yooyee du la lor sarax la woo tumiitu nga dëñal al aza lor hmm. ani tariqi walis yoon wi hmm. sadaqatun hmm. sarax la li ñuy déggee ci hadis yi mooy sarax si nga xam ne moom la yonantu sallallahu alayhi wax ne doomu aadama bu ne war na ci cëram walla war na ci yaxam hmm. sarax soosu hmm. du war googu du warug majaaz hmm. warug xaqiiqa la duut loo xam ne dañ ko sopp waaye farata la lu tax lu ciy tegtale mooy alayhi sadaqa ala googu wuccuub lay war maanaa doomu aadama saa yu xëyee hmm. ànd ak ay cëram hmm. cër bu nekk war na hmm. ca sant yàlla war naa sant yàlla ci nopp bi ci bët bi ci xel mi ci xol bi ci tànk yi ci lépp te joxe sarax nag forme ci forme sant yàlla yi waaye juróom-benn fukk ak juróom-benn. Hmm. fukk ak ñaata lañuy wax ñetti téeméer ak juróom-benn fukk. Hmm. bu fekkee ne mën naa hmm. koo defit compter ko di def naan naa sarax wax naa lii maa ngi compter def naa lii maa ngi bind def naa lii maa ngi nang dafay bari wala daf may mën naa koo def waaye daf may sonal te am naa yeneen yu ma def ñu ne la yonent bi sallallahu alayhi kat yombalal na la ko nan la ma ko yombalee waxoon na la ca xadis ja ne la ñaari rakkay yoor yoor dana doy wëllis loolu yëpp li ngay déggee ci loolu kon mooy kenn warta sàggane julli yoor yoor ndax mën naa xëy defere ñaar ñu baax ñaar ñu euh, defaree ñaar ñu am jafe-jafe mën naa xëy dimbale nit mm. ci soxlaam mm. dimbale nit ba mu war daabaam hmm. mbaa ma yëgatil ko bagage am mbaa ma xenul ko ko hmm. mën naa wax wax ju baax hmm. mën naa dem jàkka ja mën naa dëñal lor mën naa mën naa waaye yooyu mën naa am mu jafe ma ma di ko compter bépp yiw bu ma def rek dana dugg foofu waaye compter ko dana ma jafe li ma ci dimbale nag hmm. mooy ma def loo xam ne leer na ma ne hmm. bés bi moom ëppal naa ñetti téeméer ak juróom benn fukk yi hmm. waaye manqué wu loolu nag li ma koy may mooy fexe ba takkook julli yoor yoor moo xam ñaari ràkka la moo xam ñeent moo xam juróom-ñett loo mën waaye ñaari ràkkaa ci gën a néew Mm-hmm. sama borom dana wax ci xadiisul xudsi mm-hmm. xadiisul xudsi ne sama jaam mm-hmm. jullil ma ñaari rakaa ci njël benn bés bi ma fegal la wala ma doy la di des ci bés bi lii yor yor moom la wolof yi di wax fay nange am na ci wolof ñoo xam ne suñ gisee ku koy def sax ñu ne la gone du def lii foog nañ ni jaamu yàlla moom màggata koy def mm-hmm. am sax ñu koy gaamal kar mm-hmm. loolu yëpp liggéeyu seetaan la mm-hmm. ñu ngi julli yoor yoor nag fii jant bi fenkee ba yëkkatiku lu tol ni guntu ci gisug bët de ci gisug bët ndax ñun jant bi mm. dañuy werante moo ñuy wër walla ñun suuf si ñoo koy wër mm-hmm. donc xam-xam yi wax nañ ci lu bëri mm-hmm. waaye jant bi moom dana dox moom mm-hmm. muy doxee nag yàlla xam moo ko xam wa shamsu tajri li mustaqarrin laha hmm? wa shamsu tajri li mustaqarrin laha waaw léeg-léeg nag mu ne wa tara shamsa ida talaat tazaawaru an kahfihim zaata al yamini waaye loolu ci gisug bët la kat wa ida garaba taqriduhum zaata shimali ci gisug bëtkat hmm. inni ahbabtu xubbal xayri an dikri rabbi xatta tawaarat hmm. ca suleymaan waaye ci gisug bët la kat hmm. atadri ayna tadhabu ci gisug bët la kat gis na njëtt gaa ngi dem ndax ci lu dul gisug bët noonu lay mel mm-hmm. ci yenn yi walis yenn yi mm-hmm. ci yenn yi moom xam nañ ci mm-hmm. yëpp nag euh, xam nañ euh, ban ak ban yàlla fi jant bi di fenkee mm. ba yëkkatiku kemtalaayu euh, guntux mm. lu mel ni quinze ba jàpp vingt ba trente minutes bu la neexee mm. boobu mën nga faa tàmbalee julli yoor yoor mm-hmm, mm-hmm. ba tisbaar des ay minutes mm-hmm. minute mbaa juróomi minute ba tisbaar des ay minutes minute mbaa juróomi minute am na ñu ne nu mu gën a jegee tisbaar ji nga gën waaye su fekkee nag ne yow euh, mën naa am doo am dangay liggéey doo am jot mm. nga teel koo def mm-hmm. wàcc mm-hmm. Mm-hmm. kon amuk njëriñ mm. sarax ak war gi mu war mm. hadis ji wane na ko mën naa jafee compter lim bi nga war a saraxe mën naa jafee wàññi waaye nga def lu mel ni julli yoor yoor mu fegal la wàññi boole ci ak lépp loo defati ci mbaax nag xamal ne yaa ngi saraxe mm-hmm. Mm-hmm. xadis ji jàngal nañu it mm. njëriñal màndu mm. ci diggante nit ñi mm-hmm. wa sulxu noonu ko waxee fi wa sulxu xayr ca suratu nisaa xadis ji màndu yonent mu ne nga màndu ci diggante ñaari nit mm. ñaari nit mm. fexe ba ñu yéwénoo mm-hmm. ba ki am dëgg mm-hmm. nga euh, jox ko dëgg mm. kooku sarax la mm-hmm. hadis ji mi ngi ñuy xër tamit walla mi ngi xiir ci dimbale dimbale suñ mbokk walla ci dimbale xante ndax dimbale gi ngay dimbale sa mbokk hmm. moo xam ci misaal yi yonantu alayhi salaatu wasalaam tudd hmm. wala ci yim tudd teñ taxañu ci biir yim tudd hmm. lépp xamal ne sarax noo mën a dimbalee koo xam ne soxla na ndimbal xamal ne ndimbal loolee sarax la bokk na ci li ñuy jànge ci xadis ji it hmm. ñaax bu ñu yonantu sallallahu alayhi wa di ñaax hmm. ci kàddu gu baax hmm. ci kàddu gu tey wal kalimatu tayiba sadaqa jàng nañ léegi ñaari xisibi alquran te alquran mooy kàddu gi gën a tey ci kàddu yi ndax waxi yàlla la mm-hmm. bépp kàddu goo jàng ci alxuraan rek mm-hmm. xamoon ne sarax mm-hmm. bépp xaraf xasanatun waxuma alif laam miim ah, xaraf la de waaye alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf hmm? xeeti zikr yëpp ak sàbbaal sarax la waxe wax nit ñi mm. ci teggin mm. wax leen wax ju neex te mm. dëggu wax ju baax te rafet sarax la mm-hmm. mm-hmm. bu kon julli bi kon mën ngaa wax ne li muy wax bés bu yëpp sarax la mm-hmm. ndax bés bu yëpp dañ ko wax waxuloo lim naa si boo xëyee li ngay njëkk def koo dajal nga ne ko asalaamaaleykum muy sarax la nuyu nga ko ñaanal nga wax yi ca topp yëpp ci yu teey sarax wal kalimatu tayyibatu sadaqatu jàng nañ ci xadis jiit ne izalatul ada te mooy imaatatul ada watu miit mooy watu zil dañal lépp loo xam ne lu mën a lor nit la ci yoon wi sadax la nga déggee ci ne hmm. bàyyi lépp lu mën a lor nit ci hmm. eh, yoon wi wala hmm. lépp lu mën a lor sax lépp lu mën a lor sax moo xam nit lay lor wala keneen ku dul wala leen dul nit loolu def ko ca yoon wa bàkkaar la yonentu wa sallam na ne liimaan am na juróom ñaar fukki shu'batu ak nangam hmm. ne ba ci gën a kawe mooy laa ilaha illallah hmm. ba ci gën a suufe mooy imaatatul adaa an tariq hmm. dindi lor ci yoon wi ki lekk ba pare sànni ko ci yoon wi lekk banaan la wala bouteille la wala euh, lumo lumo benn mi ngi lor environnement bi ñaar mi ngi lor ku fa romb mm-hmm. ndax nit mën na faa romb tarxiis ca mm-hmm. nit mën na faa romb mu tilimal ko mm-hmm. nit mën na faa romb butee ba mu fa sànni toj mu jëm ko ma ngay collecté ay bàkkaar yu mu moo tax nit ki bum mu jàpp ne loi moo ko wax ne bu sànni ci mbalit ci yoon wi waaye diine moo ko ko njëkk sant te loi yi diine nag dëgg dëgg mooy loi waaw ngay ñëw ci Occident gis yooyu ñu fonk ko lool mm. nga ah, gis nga réewu tubaab yi te ñoo ne de tubaab yi ñun ñoo leen civilisé bu mm-hmm. dul woon ak andalus mm. te waaye jullit ya mm. konoon tubaab xamuñ nu ñoo sangoo mm-hmm. sangu mu wér xamuñ nu ñoo lekkee lekk mu wér mm-hmm. te ñoom civilité yi yëpp duñ ko xam waaye ñu ko jëlee ci jullit yi jullit yi it jëlee ko ci alxuraan benn mm-hmm. waaye benn mag benn kilifa nee na dem naa Occident ma fekk fa lislaam mm-hmm. waaye fekk ma fa jullit da mm-hmm. ñëw fekk ñuy respecté xaqi nit ñi fekk ñuy euh, respecté xaqi environnement bi nga dem ci dëkk jullit yu bëri nga gis ku lekk gerteem jël mbuus mi sànni ku lekk banaanaam sànni ku naan boisson sànni ku naan ndoxam sànni bouteille bi mbaa mbuus bi kenn toppatoowul yoon wi set na mbaa setut hmm. foog nañ ne sax gouvernement bi moom la war hmm. dëgg dëgg gouvernement bi war na leen hmm. waaye ku nekk ci ñu nit am nga ci warteef mu ne dem naa Occident fekk fa lislaam waaye fekkuma ma fa jullit nee na ma ñëw ci ma ñëw Orient ci dëkk jullit di fekk fi jullit te fekk lislaam kon lislaam yonent ni mu ko waxee rafetul jikko la dëgg la Occident Mm-hmm. mën naa mos nañu am ay yonantu mm-hmm. waaye jamono bi lislaam di dugg foofu moom mm-hmm. civilisé wu ñoon de loolu taarix wane na ko Napoléon Bonaparte mm. ba muy defar loi wu France mm. ba mu boolee France yëpp mm. te moom jàngut te itamit xamut ñu ko mën a defal loi lan la def Andalus gi ko gën a jege la dem Mhm. maanaam foofu la wutee loi mhm. nee nañu kitaab boobu ñuy wax diir diir mhm. di charxu muxtasaru Cheikh Khalil moom lañ traduire mot à moo nekkoon loi civil euh, bu loi wu France si dara bu réeree ñu béykee ñuy dàqalee ñaar ñu jotee yu mel noonu seen loi yooyu boo demee Rome tamit noonu te loolu moo yéeg ba fii Thomas Jefferson mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñoo doon bind loi wu fii constitution wu fii mm-hmm. boo demee ci congrès Amérique ba mm-hmm. kaame mbànk ba léegi kooku nag ku muy sa diine dégg nga ticket buñ la war a bindal ba pénalité bu ñu war a teg ci sa kaw warta tax ngay setal yoon waaye xam ne yàlla moo la ko teg non seulement muy farata mm. waaye farata joo xam ne saa yoo ko defee mm. am nga cee yoolu sarax mm-hmm. sarax nag dara gën a ko am solo yawmal qiyaamati mm-hmm. mm-hmm. nit ki su demee bay dee mm. li muy gën a rëccu mooy lim saraxewul assez maanaam lim saraxewul sarax su doy hmm? yàlla wax na ci alquran wa anfiqu mimma razaqnaakum min mm-hmm. qabli an yaatiya ahadakumul mm-hmm. mawt mm-hmm. fa yaqula rabbi lawla axartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-saalihin nit ki ci loolu ndeyam dañ mm. ko may minute bu mu mm. saraxe soog a dee rek lay ngéeju kon nag lépp loo xam ne ak sarax la mm. nit ci na ca góorgóorlu te xeeti sarax yi yomb nañ lool bari nañ lool mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. dañu lor ci yoon mm-hmm. sarax la kon def lor ci yoon bàkkaar la yoon wiñ tudd nag léegi mooy yoonu yëg waaye am na it yoonu maana fexe ba dañal lor ci yoonu maana mooy fexe ba sàngara ñu fe tere ko nit ñi xamal leen ak mbonam watuloo leen ko ba duñ ko naan lépp loo xam ne nii jëm na ci wàllu bàkkaar yu mel noonu hmm. ni ki eh, ngóor jigéen bi tasaaroo hmm. xamal ko société bi ni mu bonee bañ bakkoo hmm. dégg nga ak cakatu xamal ko société bi ni mu bañ bakkoo tuux xamal ko société bi ni mu bañ bakkoo fen ak jëw ak rambaaj xeeti mbon yëpp nga fexe ba xeex yooyu bañ dëñ ci yoonu nit ñi ba du leen lor ba ba ba yooyu duñ leen lor loolu it sarax la mm-hmm. bi nga def maanaam dëñal waaye nag képp koo xam ne ma ngay encouragé yooyu mm. nga xam ne ma ngay def bàkkaar mm-hmm. yu rëy a mm-hmm. lépp loo xam ne mm. daal dana jegeloo jaam bi yàlla mm. ci ay xeeti jaamu yàlla ki rafetal kooku sarax la lépp loo xam ne it jaam bi mën na koo def ba dimbalee boppam mbaa mu dimbale jaam hmm. ba ñu sori uh, mbon hmm. bañ sori lépp lu yàlla bañ hmm. kooku tamit ma ngay dañal lor ci seen yoon nga xam ne la muy def sarax la nu yàlla boole defal dégg wala ñu defal topp hada sallallahu ala sayyidina muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam leer na